Avec le lever du soleil commence la journée religieuse, vite de faire les démarches. Se lever à l'attitude digne et sereine, penché sur un livre de prière, c'est le calife, vénéré à l'égard de Dieu est dans les rares sorties des enthousiasmes qui tiennent le prodige. Durant toute cette journée, les fidèles par une chaleur floride vont se rendre en deux déterminables, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, auprès du chef suprême pour donner leur rôle et recevoir sa bénédiction. that makes the prototype on se balance avec le Puis, c'est la visite différente en de la conseil. Elle est vilaine de un humblement en signe de respect de Cheikh Amadou Bamba, situé au cœur de la mosquée et qui constitue une des raisons pour de celle-ci. Là aussi, les cœurs sont interminables. ultime sottoposto all'interno della vostra.

terdiri dan Sumba akan dapatkan anggota Tuhan Pertemuannya dalam Elden Dibuat di sini ada perkara Konstitusi tuuba maanaam li tax mu woonoon mu leen wut dara ci wut leen di wut dara ci dara na ko sàkkal waxtu kon ne bu fekkoon te ni da leen di wooye di wut dara ci dara kon dina sàkkal waxtu barab bi ne kon dina banawet mu def ko da leen di woo ngir topp digalu sëñ Tuubaa ak di leen woon na mu toll na ndigal di toll woon ci moom ni ngeen dikkee nag neex na ma lool dëgg na ci ni ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi dëgg na ci mi ngi leen di gërëmal seen njiit bu baax a baax. mooy ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy li ngeen def. da ko santaane woon nag. da ko santaane woon nag. booba mi ngi di ko doxal. booba mi ngi fi di ko doxal. doxal na ko diir bu gàtt. doxal na ko diir bu gàtt. yàlla te mu dikk bu tedd bii. sëñ xam ne ginnaaw na ko doxal. doon na ko doxal. ne maa soxna mocc ma damaa def koo xam ne kii mocc ma bëgg naa rek bëgg naa rek mu yaatu yaatu mu yaatu yaatu koo xam ne la mu si la mu si bëggoon la ci sëñ Tuubaa bëggoon lépp mu am ko ci ah mu la mu si bële itam la mu ci bële itam ñëpp am bu ma sañoon lu baax laay am lu baax laay am man ko ñëpp sa bokk ko ñëpp moo tax bis bii nga xam ne sëñ da ko santaane sëñ da ko santaane sunu bis muy sunu bis ñëpp di ko fekk bu ko defee bu ko defee lanu ci yaakaar ci moom lanu ci yaakaar ci moom te mu bëggal nu ko moom itam mu bëggal nu ko naa ko am na mu ko bëggee ci noonu te nanu ko am na mu ko bëggee ci noonu dama bëgg daal damaa bëgg daal bi nga xamee ne bi nga xamee ne waa penku gële waa penku gële dañu fay daje ji dañu fay daje ji te tax ñu mën faa daje te lu tax ñu mën faa daje moom jàmm ci kaw jàmm dañu am kiiraay dañu am kiiraay ma bëgg kaw bi itam ma bëgg kaw bi itam dañu penku boobu mais ni penku boobale ci kaw kiiraay li ñu am da leen di woo ngir topp ndigalu sëñ Tuubaa ak di leen wan na mu na di toll woon si moom ngeen dikkee nag neex na ma lool dëgg naa ci ni ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi dëgg na ci mi ngi leen di gërëmal seen jit bu baax a baax ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy li ngeen def ko santaane woon nag da ko santaane woon nag booba mi ngi fi di doxal doxal na ko dir bu yàlla te mu dikk ci barab bu tedd bii. suñ Mor Moustapha mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekkee notam. doon na ko doxal. waaye moom yàggul. moom itam yàggul. man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag. koo xam ne ngottu ma. damaa def koo xam ne kii ngottu ma. bëgg naa rek. bëgg naa rek. mu yaatu yaatu goo xam ne. mu yaatu yaatu goo xam ni. la mu ci la mu ci bëggoon. la ci jën ci waa bëggoon lépp. mu am ko ci. ah mu am ko ci. la mu ci bële itam. la mu ci bële itam. ñu am ko ñëpp am ko ndax bu ma sañoon lu baax laay am lu baax laay am te bokk ko ñëpp moo tax bis bii nga xam ne suñ ci war a ko santaane muy suñu bis muy suñu bis ñëpp di ko fekk bëgg ñëpp di ko fekke bu ko defee bu ko defee lanu ci yaakaar ci moom lanu ci yaakaar ci moom mu bëggal nu ko moom itam mu bëggal nu ko dana ko am na mu ko bëggee si noonu dinanu ko am na mu ko bëggee si noonu dama bëgg daal dama bëgg daal bi nga xamee ne bi nga xamee ne waa penku gëlee dañu fay daje ji. dañu fay daje ji. te lu tax ñu mën faa daje. te lu tax ñu mën faa daje. pour jàmm ci kaw jàmm. dañu am kiiraay. dañu am kiiraay. ma bëgg sow bi itam. ma bëgg sow bi itam. dañu penk boobale. mais ni penk boobale. ci kaw kiiraay li ñu am. ci kaw kiiraay li ñu am. وبلد داي بجمال آيات